tey ci ndigalam nu wuutu ko ci fàttali mbokki jullit yi ñi fi teew ak ku ko dégg kone ne rek lu aju ci bisu tey bii ak bis yu mag yi nu toll ngir ku ko yàlla fekkelooti mu bañ leen a sàggane bu leen muste sàggane it mu yokk jëfam kem kàttanam fan yi nu toll di fani fukk yu jëkk ci tabaski te tey mujj ci yal nañ ko yàgga teewe te di ci jaamu yàlla fan la yoo xam ne ni yàlla bëggee ñun jaamu yi nu ko ciy jaamu moo raw ni mu ko bëggee ci yeneen fan yu mën di doon ak doonte ne ci fan yépp la ko bëgg amul yenn fan yu bëgg ko ko ciy moy ni ko ñépp xame nu man cee gise ne loolu mooy ku ne ci nun lim daa def ci topp ndigalam ak moytu tereem ak nu mën di toll bu fan yi dikkee daa war a jéem mu yokk bisu tey bii nag mujj ci taraañu ko ci lool gën ci bisi at mi yépp kenn mënu cee def lu ko gënal gannaaw faratey juróom wut ci tabaski moo xam ne sarti tabaski daje na ci tabaskee ko am na hadis bu ci wax bu amee ñu ko doy dalit dikk na ci yenn sixaax yi tirmidi yi andi na ko ak ibnu maaja mu di ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا وربما هنالك اختلاف بسيط في اللفظ مثل ما عمل ابن آدم يوم النهر عملا أحب إلى الله من إراقة دم wa misli la yaqamu min allahi azza wa qabla an yaqa ala al ard badalan mimma zakartu fi bidayati wa nihayati al hadis bi mooy wax ci bisu gi bii wax ci nga neeli fukki fan yépp nag te ñaar ñi ma tudd andi ko bayhaqi it mooy ma min ayaamin ahabu ila allahi an yutaabada lahu fiha min ashri dilhijja yaadilu siyaamu kulli yowmin minha bi siyaami sana wa qiyaamu kulli laylati minha bi qiyaami laylati alqadr buxaari moom andi maa min ayaamin alamalu alsaalixu fiha ahabu ila allah min hadihi alayaam yaani ayaam alcashr qaalu ya rasul allah wala aljihaadu fi sabilillah qaala wala aljihaadu fi sabilillah illa rajulun aw illa rajulan xaraja bi nafsihi wa maalihi summa lam yarji min dalika bi shay mu ne amul yenn fan yoo xam ne yàlla bëgg na ko ci def lu baax lu raw ni mu bëggee ko def lu baax ci fan yi jublu ci fukki fan yi ñu ne ko yonente yàlla bi ba ci jihaad sax ci yoonu yàlla jihaad ci yoonu yàlla sax li muy rëy rëy nit mënu ci am lu tone li muy amee ci def lu baax ci fan yi mu daa mu ne ba ci jihaad ci yoonu yàlla ba mu des rek benn waaye bu génn jihaad ak bakkanam ak alam ak alalam ak delsuwa te delsuwaatul ak dara ci yooyu bakkanam des fa alalam des fa kooku rek mooy ki mën def lu baax ci fan yi bokkut ak fan yi man ci am lu toll ne def lu baax ci fan yi dana ko ci am kon jullit bu ne war war ñaan yàlla fekke leen at yu bari te saabu dikkee mu góor góorlu ci jëf-jëf yu baax góorgóorlu it ci moytu safaan bañ leen di jaxase yàlla tere nag di yem ci safaan moom it des koy ful lu aju ci jëmmi tabaski mi nag bu amul ayib jufees rekk rek rawatina ju bokk ca ñeent ayib ya ca xadiisu albara dal nay doy insha allah ñeent ayib ya ñooy soox pat wopp jeex yii lu ci fés day yàq buñ ci boolee xool bu baax bët yi ak nopp ya ni ko yonent bi diglee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu bañ a doon borom nopp bu dagg bay lang ca kanam ga walla fataloog dox ga wala borom nopp xotti ko wala bu bënn mu gën a baaxati bu mënee mucc ci ayib yépp nag ju fés ak ju fésul mooy muxtaar mi lii lépp nag day fekk ki mi egg ci cig mag fa mu war egg bu dee xar lu néew néew mu am juróom benn weer am na ñu ne juróom ñetti weer am na ñu ne fukki weer am na ñu ne mu am at bay mu dugg ci ñaareelu at nag mu dugg ci ñetteelu at bu duggee ñeenteel mu gënati gëléem mu dugg ci juróomeelu at bu duggee juróom juróom benneel mu gënati kum jàppandul ci moom tey balaa sawaal fii ba gannaaw suba ca sawaal bu fi jàppandee mu baax waaye nag guddi bokk ci bu sawal jotee tey li dale foofu ba jant bi so mooy ñaareelu daraja yoor yooru ëllëg ba sawaalam jot topp ci yoor yooru gannaaw ëllëg ba sawaalam jot topp ci ëllëg ca gannaaw sawal nag kum jàpp ci moom tem gis ne bu ko deful ba jant bi so def ko du ko jàpp ni gannaaw ëllëg ca yoor yoor te mu jàpp ne ko ku xamul moom xam na yàlla xam na kooku mën na koo def balaa jant bi so ëllëg di juróomeelu daraja bi bàyyi ñeenteel bi di yor yoru gannaaw ëllëg ngir ngànt ci gàttal lii lañ tënkoon ci fukki fan yi ak ci bisu tabaski bi di bis bu ci fës yàlla na leen yàlla yàlla na nañ leen yàgg a fekke te yàgg cee defal yàlla lu ko neex léegi nu jox kàddu gi al imaamul akbar gannaaw bin ko wuutoo ci lii nu ko wuutu wa arjullah an yu ayidahu wa yansura wa yahfadahu wa yastura وأن يطيل بقاءه وأن يجود شفاءه والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi ñuy ñëpp di ziare ñëpp kilifa yi jiitu ji mu ci am solo lépp alhamdulilahi rabbil alamin Cheikh Mahamadou Fadil taxawe na ko jàng na xotb bi buñ ko xamoon itam mu de am ci tabarruk barkeb xutba bi mën noo jëriñ biir biti dolli ci itam kàddu yoo xam ne xam-xam la fa tabaarakallaahu kon dafa mel na jataay bi ay wax desatu ci toll naa waxtaan nag moom amul waxtu kon man lu ma teg rek waxtaan la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 diggante bi tëlu fi dara ndax àdduna fi ne ak jëmmi bakkanu doomu aadama ak yeneen gàllankoor yi saytaan ak bànneex yooyu sëñ bi mustatal àdduna ba yooyu di am ci moom wàll kon buñ ko bëggee jàng il faut nu jéem a sóobu yàlla yàlla di ko gën a jéem waxtu wu nekk ñuy di gën sóobu waxtu wu nekk ñuy gën a mën a dëddu àdduna ah, dëddu àdduna téewuta lekk téewuta naan téewut sul mbubb téewuta denc téewuta am kër dëddu àdduna da ngay def sa xel sa xel waxtu wu nekk da koy def ci jëme ci yàlla nga gën koo mën a xam mu la gën a mën a leeral yoon wi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 ak luñ ci ñàkk ñàkk solo il faut nu jéem jullu jëmale suñuy xel ci loolu jëmale ci suñuy xool jëmale ci suñu suñu jëmm yépp suñu lépp di góor góor bu baax foofu la jëf tàmbalee nu gën a góor góor lu baax nag te lépp lépp lu gën a gën gën gën koo delloo gën a ci suñu borom rekk di yéene lu baax te yàlla tax di wax lu baax te tax di jëf lu baax te yàlla tax bàyyi lu bon te yàlla tax loolu foofu la jëf ji tàmbalee.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 ñaari xayma yooyu nga xam ne moom la doomu aadama na am muy ngor ak jom in fokk bala moo am njëriñ dëgg dañ koy sof ci pëstéef kon nu gën cee góor lu baax ndax boo boolee sa ngor ak sa jom jiitu jiital sa Pastef ci jikko juree la lay indil ci lay delloo jikko juree nag ngeen ko xame loolu la sunu moom tagge yonent bi bu jukki rek jukki xasee am nag benn safaan duutu la mën a dog loolu noonu rek la demee maa ngi sant mbokki jullit yépp ci seen lislaam sant mbokki taalibe yépp ci seen taalibe di gën a ñaan suñu borom rek nu gën noo gàtt ndoog tawfiix sëriñ Tuubaa ndax tawfiix sëriñ bi sëriñ bi tawfiixi boromam rek la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 gi nag mooy jéem gi koy jéem di ko jéem a xam di ko jéem xool loolu dana nu dana dolli suñ xam-xam ci moom dana dolli kàtt nit bën gën ko mën a dund kon alhamdulilahi rabbil alamin noo ngi sant ñëpp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 kon jërë ngeen jëf yal na nu suñu borom gën a gàttan ak tawfeex Sëriñ Tuubaa ba mën a nu gën a def suñu wartiif ginnaaw ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ginnaaw jaamu yàlla rek nu fi indi te sëñ bi lu ca a def lu ca mat a def def na ko kon alhamdulilah nu sant rek la nu war a def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 te nangul nu suñ lépp jërë ngeen jëf mu ngi jégalu bu baax a baax lii du xutba du dara waxtaan la rek kon eh, alhamdulilah rabbil aalamiina loolu mooy sama yéene eh, di seeral ñëpp waxtu wu ne may gën a yeesal sama jaayante sëriñ bi waxtu wu ne may gën a fedd di sama laxasaay liggéey sëriñ bi ci yaari yaari gën yooyu rek lay nekk jaamu yàlla ak liggéey sëriñ bi nii mu ko waxee rek ni mu ko tuddee ci boppam ba ñépp xamee ko ni abdullahi wa xadimu li rasuli ci diggante boobu rek la nekk nun ko sañ nonu mun nu ñàkk jaamu yàlla ndax yàlla nu moom waaye nag nu liggéeyal nu boole di nu nekk ci diggante boobu di jaamu yàlla nam nam ko nam nu ko diggale ak na ware di liggéeyal sëriñ bi nam ko bëggee nam gën a selle jërë ngeen jëf